C'est c'est ni C'est c'est ça sa jërëjëf Abdou Thiam jërëjëf Yacine Pouy ci digital gi mbokk yi jërë ngeen jëf ci ànd beeg RFM Barthélémy Ngom ñu koy jaajëfal ci réalisation bi pencoo gi tey jii ñu wéy ànd rek talaata junne ak ministère du commerce waxtaane luyaas bi ak euh, bi décret bi jibeeg léegi fa ñu toll ci mbir yi tey jii ñuy dalal Idrissa Baldé Idrissa Baldé mooy secrétaire exécutif bu CONAREL CONAREL ñu fàttali ni mooy commission bi nga xamante ni ci njiital Mouma Ndaw moom la ñu dénk lépp lu taxawal ak yoonal ci wàllu luyaas bi di kon commission nationale de régulation du loyer Euh, monsieur Balde ñu ngi lay ziar bu baax rafetlu sa ànd ak RFM. Euh, El Hadj Assane ñu ngi lay sant de la ziar. jërëjëf euh, Idrissa Balde ak Konarel am est-ce que nit ñi booba ak léegi ñu ngi boole ak xër ci mbir yi impression ak perception bi nu am mooy moom daal mooy loolu si c'est pas le cas à votre niveau sentir ngeen ne yëf yi daal mu ngi dox nit ñi moo nañu dogal bi décret bi ci wàllu wàññi luyaas gi et cetera. waaw maa ngi lay remercier bu baax a baax a baax occasion bu may may ma wax ak euh, askan wi euh, je crois que c'est la première fois may may prêté à pareil exercice. ok euh, di ko def nag avec beaucoup de plaisir. alhamdulilah mais avec aussi beaucoup d'humilité. Mm-hmm. parce que secteur la boo xamante ni dafa intéresser tout le Sénégal. oui en tout cas mu ñu bëri. Mm-hmm. ce qui fait que tey jii man en tant que président de la commission. Mm-hmm mën naa wax ni dañoo ñëw euh, d'ailleurs décret yi génn nañu décret création commission commission bi ak nomination yi. Mm-hmm. man secrétaire exécutif bi di remercier euh, di ci sant mm-hmm. parce que sénégalais y a 17 millions de sénégalais ku ci nekk mënoon na kaa mën oui donc pour bénéficier de la confiance des autorités en l'occurrence le président Macky Sall. Mm-hmm. Euh, ma am accompagnement boo xamante vraiment c'est rassurant de la part du ministre Abdou Karim Fofana que aussi les services du ministère de, commerce disponibles et vraiment très ouvert à, la commission mm-hmm. en, termes d'accompagnement. Mm-hmm. je crois que je suis, en tout cas, on est bien préparé pour euh, assumer la mission. Ah, très bien. Nous fait la situation mm-hmm. euh, le décret euh, euh organisé baisse de loyer, oui. création commission bon ça ne peux que expliquer parce que ça signifie que les euh, loyer bi du préoccupation bu baisse ci ci mm-hmm. donc mais cette fois ci il y bëgg a pour xool naka lañ ko améliorer en termes d'efficacité. très bien jooyante affaire quoi. voilà donc ce qui fait que suis président de président commission je euh, suis conseil d'orientation. Je mm-hmm. euh, suis secrétaire exécutif ok am naa secrétaire exécutif actuel. oui donc mais pour l'instant. Mhm. man euh, d'un bout dara bu dara damay damay mhm. euh, mais aussi pour moi aussi tey m'a sama préoccupation moi oui xamal nit ñi suñu taxawaay. Euh, suñ parce que ça liggéeyal bo boo xamante ne service de du commerce yàgg na def. Mhm. mais ñun suñu apport lan la ok loolu nag mënuma na ma inventé. damay sukkandiku ci ci lu ñu bind mooy décret bi. ok mooy départir les prérogatives euh, du n'est-ce pas du conseil euh, de la commission nationale. de régulation. bon si je comprends bien tey li la gënal mooy euh, fexe ba askan wi xamante ak kuréel gi ñu dénk. wàllu yoonal gi. parce que mbir pour mu jariñ la faaw nga xam mooy kan ak fu mu jëm. voilà parce que damay faral di wax sama sama naataango yi ministre waa commerce. Hum. ñu dañuy dabee. Hum fekk nañ liggéey ba de na ba vraiment. ok tey jii boo xoolee serveur bi euh, question yi ñu ci posé. Mm. ay question technique ay question pertinente mm-hmm. euh, su service ministère de la du commerce ñu ci répondre avec beaucoup de beaucoup de pertinence beaucoup d'efficacité. Mm-hmm. léegi nag mais bëgg naa aussi nit ñi xam ni euh, commission ba lii moo tax mm-hmm. si c' le cœur des métiers de la commission. allez-y par exemple allez-y lan moo tax d' commission bi la commission en fait euh, moi, lu ma moi mooy ma la mhm. am am ay ay champs d'action yu concerner régulation. Mhm. bu ñu régulation moy euh, mettre à niveau. Mhm. en tout cas puis, sunu sunu sunu objet yi sunu euh, objectif bi. Mais euh, ñu xool naka la proposer ay mesures yoo mhm. renforcer la lutte contre les hausses illicites de qui et les pratiques spéculatives au niveau du marché de l'allocation. la location. Mhm. naka contribuer. Mhm. pour que nous ayons ñu Sénégalais en termes d'accompagnement pour ñu accéder à un logement. parce que locataire euh, ñàkk ñàkk a pas la. mais nous ñu sañoon ku nekk am fu euh, fu mu ensuite ah, nous lañu assuré parce que suñu commission bi day am ay ay cellule euh, régionale, mm. ay commission régionale. oui nak nañu def commission régionale aussi ñu n'est-ce pas seen activité yi leen leen tas. Mm-hmm. ensuite nous lépp loo xamante ni se saisir de toutes les questions entrant dans le domaine de compétences mooy régulation bi. Mm-hmm. léegi parce que la euh, législation. lépp ay évoluer mm-hmm mën ñu joxe suñu avis sur tout tout projet de texte boo xamante ni euh, mu ngi jub ci euh, ci location à à usage d'habitation mhm. maanaam tënk comme ça mooy mooy les missions maintenant mission yooyu ñen ñoo koy porter am nañu ñaari organes yu yu muy conseil d'orientation bi mhm. ak secrétaire exécutif bi conseil d'orientation bi seen seen seen seen liggéey mhm. maanaam ñoo ñuy sas parce que ñoom ñooy décider nous ñooy approuvé nous ñooy joxe orientation statistique de euh, CONAREL yi en tant que euh, boobu commission. boobu mm-hmm. conseil d'orientation presque n'y a pas nekk. Mm-hmm. ma ma nguur présidence primature euh, ministère des finances ministère de la consommation ministère de l'habitat ministère de la justice ñu boole ci locataires yi boole ci agence immobilière. Mm-hmm. boole ci bailleurs de fonds boole ci expert immobilier yi. Mhm. architecte c'est un conseil d'orientation composé de 12 membres pas présidé par euh, euh, euh, le président Momar Momar voilà Nous, nag conseil d'orientation bi liggéey mhm. mettre en œuvre. Mhm waaw ñun ñoo yéenay doxal euh, yéenay jëmmal dogal yi quoi. voilà ñun ñooy naan bon conseil hum. bi di la décider. ñu xool naka lañ ko mën a dans le meilleur des cas. oui léegi nag loolu euh, secrétaire exécutif bi moom moom moom lañ ko sas. ci article 10 nee nañ secrétaire exécutif détient tout pouvoir de nomination. d'administration et de gestion des personnels de la CONARER. ok maanaam dafay mel ni entreprise. oui oui man suis nek employeur bi. Mhm. au sens du code du travail. mais là euh, aussi amna amna ñu ma y a le ministre bu bu sama ci kaw. Mhm. le ministre de euh, de la consommation. oui euh, ensuite il y a le conseil d'orientation qui oriente. Mhm. man may mettre en œuvre les nag. à chaque fois à chaque année conseil d'orientation boobu mooy approuvé chaque fois lu ma mus a sant lu ma jox ci liggéey moom moo koy moom moo koy euh, validé moom moo koy approuvé maintenant bëggoon naa ñu daal di génn tuuti aussi ci c'est vrai que ci euh, prérogative yi mais ci mhm. wàllu efficacité dans le travail bon bu ñu déggee ñi seq ñëpp kuréel gi euh, j'ai même envie de dire vraiment jëmmal mbiri war lu na të parce que dogal am na décret am na wàññi gi mhm. xam nañ ko niveau bu ne 15 pour cent pour cent pour cent li des que warul të të kuréel gu mel vraiment de euh, ñu consistance bi mu andal ci biir ak ñi euh, mhm. n'est-ce pas on peut espérer une certaine efficacité Oui, Oui, mais ñun euh, ça Moi, une suis mission parce que le président de la République bu les mesure bu mettre en place cette commission là. c'est pour donner un coup de fouet pour, pour, pour, pour question de location, n'est qu'une question d'équité, d'équité et de justice sociale. Mhm. entre qui et qui entre nous lui, et ñu euh, locataire mhm. bon mais là aussi euh, le message sas dafa la meilleure approche moyen nous concilier. jubóole concilier mooy lan. ñu xool naka la ñu mën a. munu ah, bu sañu ma laaj ab mbalde mu gën a góorlu ci wolof yi waaye français yi bari na de. <laughs> waaw d' accord léegi léegi ñu xool <laughs> c' que moom laa bëgg naroon wax <laughs> euh, pël bi pël bi la olof bi beneen beneen exercice la mais ñu mais ñu ngi Sénégal moo moo tax Sénégal neex. dëgg la. parce que en fait ba ma nekkee ci man ci lébu laa yoro ah, ah. te yaa ngi nii di wax wolof yu baax macha allah. waaw yenn ma waxee ñu ne ma ay ay olof yu màgget laay wax et <laughs> mais euh, je me débrouille quand même. <laughs> Mhm. Euh, maintenant lu ma bëgg a wax mooy. Mhm. Euh, ñun suñu mission suñu suñu liggéey mooy. Mhm. du pour bundu xatal kenn. oui oui. parce que qui defa mom alalam. ok investir ba. am lu mu mën mettre à à la disposition. investir momit it waaw ki dafa am xalisam ñew ci nit ki mu ne ma lii laa bëgg gënd ci kattan. bëgg fu mu dugg waaw. bëgg fu mu dugg ku ci ne nga soxla sa morom. ku ci ne nga soxla sa morom léegi ñoom ñaar c'est comme on le dit souvent bëñ ak làmmiñ ñoo dëkk. Mm. mais du du ñu ñàkk euh, euh, am télescopage. Mm-hmm. léegi ñun suñu liggéey mooy euh, muy employeur bi kii muy bailleur bi. Mm-hmm. wala muy locataire bi. ku ci ne am nga ay ay devoir. Mm-hmm. mais aussi ku ci ne am nga ay droit. ñun ci suñu médiation bi régulation bi parce que bu ñu réguler mooy tollool. yemale yemale waaw yemale ku nekk nekk ci lu mu a donc loolu mais naka lañ koy parce que euh, problème du mm-hmm. mais bu amee dañuy d'abord naka lañ koy a mm-hmm. conciliation conciliation parce que euh, procédure judiciaire bi mooy bu bi. Mm-hmm. que bu ñu ay sénégalais. Mhm. Euh, ku nekk soxla sa morom. Mhm. bu ñu amee ay problème suñu diggante ñu xool naka lañ ko mën a saafara ci ci nu mu gën a euh, euh, mhm. jekkee. ñu bañ a egg tribunal. tribunal moom moom mooy bu mujj bi. voilà léegi nag du ñàkk nag. mais mooy tax même commission régionale yi. am nañu ay ay commission régionale ñoom tamit loolu mooy seen métier. commission régionale gouverneur moo leen di moo leen di coiffé. ñun tamit. ñu ngi ñu ngi euh, loolu la war a def. Mhm. pour que chaque fois bu ñu jotee ka boo xamante ni diw ak diw ñu kii locataire la ki bailleur la ñu doog xool wala ki agence immobilière la. Mhm. en tout cas ku ci mënta nekk daal. ñu xool naka lañ ko mën a saafara. dans le meilleur des cas. Euh, wàllu wàllu commission régionale yi euh, c'est presque comme ay bërëbu àttekaay yi parce que même ci wàllu justice sax am na ay maison yoo xamante ni dañ fay fexee jubóole nit ñi laata ñu egg tribunal ay jumtukaay yu am solo la mais xam naa ci wàllu communication di ngeen euh, def seen kem kàttan ba nit ñi gën a xamee ak yéen xam bërëb ya ngeen di nekk jokkoo bi ak yéen di yomb etc. Euh, pour mën ko def ñoom seen yëfu bopp. bu ko defee mm-hmm. doon ne kaa dem tribunal sax mun na braqué wu mer mais bu dee kaa ñu dem ñu ñëwal ñu dem ñu suñu mm-hmm. a donc il faut ngeen def ce travail de communication c'est c'est ça ci loolu d'ailleurs parce mm. que sax ñu serveur bi mm-hmm. ñu fay Nous ñu mm. Mm, des gens qui demandent des informations ñu laaj ci information j'imagine le huit cent quatre-vingt euh, soixante-dix-sept par exemple euh, ci droit la loi mm-hmm mais euh, lu ci gën a euh, bëri euh, kenn presque man mënul xam à fond la loi. Mm, mm-hmm. parce que souvent loi bi dañ koy interpréter. te loolu c'est pas la portée de tout le monde. donc ñun suñu mission principale. Mm-hmm. bala nga mën a nit il faut que ñu ñu toll compréhension. ñu toll niveau de compréhension. Mm-hmm. niveau de compréhension mooy ku nekk xam lu mu war a def. ku nekk xam lan la def mu moo njëkk son nekk son premier juge les bu bu loolu amee euh, day sa dem ñu wax service de de commerce euh, ñoom dañuy déplacé wu ñëw constaté. Mhm. dañuy déplacé wu yenn saa dañuy def ay appel euh, téléphone bi tout ce qui s'ensuit. Mhm. la ça ça demande des moyens humains. Mhm. mais également des moyens disons financiers. pour que def tout ça en tout cas vraiment euh, enthousiasme. Euh, parce que question transversale aussi hein. est-ce que Moun am département ministériel oui mais parce que nous, nous ñu conseil d'orientation ah très bien justice euh, habitat euh, lépp loo xamante ni par rapport à la recherche des moyens moo taxoon may wax. non non recherche des moyens mooy mooy que mooy que en fait c' était un clin d'œil bu ñu doon def à la commission. <laughs> c' <laughs> da nga doon yëglu pour gars yi yokk moyens yi. voilà waaw dañ doon wax ni ah ñun xew nañu xew nañu affaire bi xew na diis ñun. oui oui léegi léegi il faut que ngeen xool naka dañuy jàppale pour liggéey bi gën a yomb. Mm. liggéey bi du yomb de ndax xam nga vide bi dafay yàgg de Sénégal dañoo yàgg bàyyi noonu ku ne di noggatu sa morom euh, ñi sekke nag njëween yi bañ a fay duñu fay yi waaye it euh, borom kër yéen tam di. nuyu ay ay non mais ñu sant ñu ñu sant Diallo aussi. ñu sant <laughs> ñooñu ñooñu tamit boo ñëwee. <laughs> Euh, ñoom ñu naan ñooñu naan euh, jël lu mu moom. waaw jël lu mu bëgg ayut. mu ngoog léegi vidéo boobu nag moo fi yàgg quoi. bu revenir à la question c'est que en fait ñun suñu défi. Mm-hmm. parce que bu ñu créé la commission amoon na ñaari ñaari ñaari xalaat yu yu yu yu yu yu pël la. mooy que ne ñi naan ah lii xam naa du dem fen mhm. du mujjee fenn. ñii naan ah, ah yàgg nañ kaa xaar. Mhm. alors ñun ne dañoo bëgg léegi ñu naan yàgg nañ kaa xaar ñoo ñu gën a bëri. Mhm. mais maintenant la ñun ñoo ko war a euh, ñun ñoo créé situation boobu. dem ci nit ñi. buñ leen bu ñu ooyee ñu ooñu dem ba sax am na ku ma ku ma ku ma oo tiital ma sama benn xarit. <laughs> xam lu ma wax. waaw mu ne ma man mu ne yaay président ma ne ko am problème ak sama bailleur. Mhm. ma ne ko ah waaw mu ne ma dama bëgg nga ñëw mais nag dama bëgg a yëgal balaa ngaa ñëw affaire bi mystique la. ma ne ko mystique. <laughs> Badou ma na ko ma ne ko waaw. ma ne ko bokkul ci mission bi nag moom. waaw sama benn xarit mu doon tooñ. <laughs> oui oui ma mystique uh-huh. ma ne ko bu dee mystique moom du ma ñëw. léegi da ngay xool ci ñuy gérer mystique ñooy ñooy gérer situation. kooku bàyyi kooku Momar Ndao. <laughs> voilà moom wane na rek. en mm, fait. oui oui xeebuñ xeebuñ benn problème. dëgg la dëgg la problème bu ci dëkk rek. oui oui. moo tax nag euh, léegi euh, région yi. Mhm. même ci région yi sax bu gouverneur xalaatee ni département war na am. cellule kii mhm. euh, commission. oui danañ ko fa taxawal. na ko ko taxawal. pour rapporter rapprocher l'information. ci mhm. usagers yi. pour que vraiment cette question là. et puis xam nga Sénégal dafa neex Alaaji Assane. Hmm. Sénégal dafa neex. dëgg la dëgg la. te ñun ñun ñu ñoo koy. ñu koy mais mais ci kaw ñu ñu ñu ñu ñu kon nekk sunu valeur yi ñu amoon xam nga léegi dëkk bi moom. Ah, euh, vraiment lu bari luñ mën a waxtaanee. Euh, ko koo nii noo sant sax mun la lu tax nga wax laaj ma ko nit ñëpp a mer. je me demande pourquoi xaw ma ay jiine dugg ci dëkk bi xaw ma. mais mais ah. pourtant nit ñi nit ñi nit ñi mer ñu mais dafa am euh, sunu sunu culture. dafa am lu ci rax. Hmm, hmm. buñ ko buñ ko buñ ko arrêté wul. dañuy mel mm-hmm. parce que man enseignant la ok ok man di enseignant de la tête donc dafa am fu culturellement waaw ak ñun dañuy mm-hmm. euh, <laughs> ci agressé dañu finalement même ci euh, parce que aussi maire la mais ci bi mm-hmm. dañuy dañuy consommation bi bu consommer ak ak bon ce qui fait nag léegi euh, il revient à tous les Sénégalais. ku mm. nekk fu nga nekk. ak sa taxawaay ak sa mm. comportement. surtout nag ñu ñu yàlla may tuuti euh, at at ak xam-xam. Mm-hmm. Euh, ak pouvoir ñooñu ñooñu war a diriger pour que ce Sénégal la continue à être le meilleur. pour pour la cest a gën aw ay quoi xam nga ay xeex mais après dina mujj foo xam du neex kenn ci yéen ñaar. waaw mais mais mais aussi nag mën ngeen xam nga aussi euh, des fois sax ñàkk a déggoo sax. Mm. Euh, c'est pas c'est pas mauvais. oui mën ngeen ñàkk a déggoo ñàkk a déggoo au départ. oui mais à la fin nga nekk ay xarit. Mm-hmm, mm-hmm. loolu tamit mën na am parce que loolu moom. parce que ñàkk ñàkk xam bi mooy nekk la cause moo tax. ñàkk xam bi parce que voilà ah, ñu ne xamee ma ko noonu. xam nga ñu mm-hmm. bari loolu ñu wax xamee ma ko noonu. dëgg la dëgg la ñu ne suñu mission mooy. ñu app ñu yóbbu information ci fu mu gën a kii fu mu gën a euh, fu ñu gën a soxla. pour que yooyu yëpp euh, ñu wàññi ko. dëgg la dëgg la te bu boobaa ñun am ci ndam en tant que membre de la commission. Mm-hmm. gouvernement Sénégal am ci ndam. Mm-hmm. Euh, service yu ñu toppatoo loyer yëpp vraiment gis seen bopp. Ah, en tout cas mooy la politique boo xamante ni moom la ñu sas. Mm-hmm. te incha allah. Euh, muy yéen les les muy parler écrit télévisuel. ñu ngi leen xaar ñu ngi xaar vraiment seen appui. Mm-hmm. parce que tous les jours. ku nekk boo yeewoo rajo ngay déglu wala télé. wala ngay dugg ci ci réseaux sociaux yi. Mm-hmm. léegi nag moo tax nag ñun commission bi bëgg nañ ñu xam suñu taxawaay. Mm-hmm. xam suñu mission. mais également jàppale ñu parce que en fait euh, ñaar nit ñu jotee. pour ñu mën a leen boole pour ñu pour ñu mën a ànd. il faut de ku nekk il faut que nga di am looy bàyyi. mais nag loi bi moo ñu arbitré. te loi bi defal ko pour kenn. pour ñëpp la. te loi bi mënees na am assurance que ni euh, gaañul benn ci ci ci deux parties yi. Euh, non non non parce que ñu ko def du borom kër gi du kii luye. ñu ko def ñu ñu ñu bind loi bi. Mhm. Euh, presque ñu yàgg sax nekk loca kii Eh, wala ñu nekk bailleur. Mhm. en tout cas c'est des Sénégalais la comme ñu yow ak man. ñoom ñoo ko bind te xam problème bi bu baax a baax a baax a baax. Mhm. man am na loo xamante ni tout temps sax damaa nekk ci njàng bu métti. <laughs> parce que am na loo xamante ni. oui oui man man pédagogue laa yàgg na ci ay classe laa gën a dëkk. ak mhm. ci bureau. mais aujourd'hui problème yi may yi may yi euh, euh, ci nouvelle mission bi. damay gë gën a hmm. pousser ma gën a xam Sénégalais yi ma gën a hmm. xam aussi soxla yi parce que. ah euh, la proximité y' a y' a nit ñi xam nga nit ñi tam boo waaw boo boo demul à leur niveau. wala ñoom ah, ñëw ah, ci ah. yow man a jotee ci yow. waaw euh, bi euh, affaire gestion bureau tubaab bi foofu la ñu xaw a reyee quoi. karawaatu rek bu nit ñi boo leen soree rek ku nekk umpul sa morom ku ne di xalaat lu nekk sa morom. si loolu mooy immunité loolu ma immunité. Mm-hmm, mm-hmm. parce que ku la nga nga bañ kaa jël. Mm. man nee sama téléphone léegi. Euh, dama koy damay uyu ba sonn. Mhm. finalement mais dama naan lii si moom. loolu lañ la fa tegee boo ko xamee noonu rek. muy muy jàmm. waaw mais am na ñoo xam ni danoo xamul seen bopp rek. waaw waaw même yéete yàlla bu ñu la oyee saa yi sax ngay ngay añ wala ngay reer yooyu. xam nga bon da nga naan may xoolal te maanaam xale yi dañoo daaw loxo. dégg dëgg la may ma ma yeggale. mais mais mission bi boo ko defee sacerdoce di nga di nga waaw da nga dem macha allah. en tout cas bu baax a baax sant sama président bi. parce que en fait en réalité. man ñun pratiquement xam nga mbiru yàlla. bu ñëwee rek dina ñëw nañ moo tax nag sant sant yàlla rek. Mm. Euh, euh, julli suñ suñu yonente bi. ensuite léegi may naa may ñaan ñëpp. Mm-hmm. ku ci ne foo mënte nekk. Mm. surtout nag sama sama collègue maire yi. parce que xam nga maire yi ñooy ñooy presque président de président de la république ci seen gox. ñooñu ku ci jàpp. Mm-hmm. informé euh, di di mën nga nekk premier niveau sax arbitrage. dëgg la. parce que boo xamee rek mën nga nekk le premier niveau d'arbitrage mu fekk ñu tal ko ndax ñu ci bari téll téll politique rek politique rek ñu wax ko ñu baal ma nag waaw mais politique nag xam nga loolu lu may wax lu ma lay wax nii euh, conciliation politique la hmm. ah non xam xam nga politique bi may wax waay <laughs> waaw donc xam nga dafa am xeetu politique bi may wax xam nga ko loolu euh, bu ngay wax xam naa ko mais mais mais boo demee ci ngénte yi par exemple uh-huh. boo demee ci ngénte yi hmm. wala ci dij yi wala ci ci yeneen euh, ci jàkka ji waaw ñu ngi fa rencontré yaakaar ne yow maire nga am na loo xam loo xam te ñoom xamuñu ko. mais c'est nous qui sommes soxla. ñu divulguer cette information là. ñu mhm. gën xam commission bi. gérer au mieux nous euh, transformer gestion location bi. Mhm. en gestion populaire boo mhm. vraiment kenn du ci am lu ko lu ko jaaxal. macha allah jërëjëf monsieur Balde RFM en tout cas ñu ngi lay gërëm baax. waaw maa ngi maa ngi gërëm ñëpp di la surtout. Euh, maa ngi maa ngi olof <laughs> bi non olof de. Ah, <laughs> macha allah la prochaine fois wax ci damay voilà voilà comme Casamance la. waaw suis wax ci sosé man naka wax ci ci mhm. ak ak allah li nga wax secrétaire exécutif bu commission nationale de régulation du loyer. gërëm bu baax ab Abdou Thiam euh, macha allah wax dëgg yàlla loo gis rek dees koy waxtaanee waaw xabar xabar toj mbir yi ba pare daal ah xamee ma ko woon nii ak a ay nit ñuy doxalee noonu ca jamono ji dafa laaj ak dal euh, bañ a doon benn nopp di déglu ñaari wàll bu ko defee nga mun a méngale pour nga mën a gam-gamle sax faw nga am ñaari son de cloche en en chose nag waaw kilifa day mat day dal. Euh, gërëm ñëpp ñaan yàlla aussi poos yi dara ne ci parce que lépp am na ñoom bu ñu banqué wax dëgg yàlla dañuy naqari deret Abdou Thiam moo nekkoon ci technique bi El Hadj Assane ci micro bi digital gi soxna Yacine puis réalisation Barthélémy Ngom ñu yendu ak jàmm.